is going to surrender anytime. Especially when that thing is good for them. So guys, we are going to be doing some workout again today. From now on, inshallah, we are going to be doing workout four days a week. Monday until Thursday alxames non altine ba alxames incha allah <laughs> altine ba alxames incha allah danaa ñëw fii ñu exercise yëngal yaram fuddu yuuxu wàññi yaram daal su ma deewut te newuma di liggéey ci suba alxames ah sorry altine ba alxames danaa ñëw suba su ne incha allahu if I'm alive and I don't have work to do in the morning I'll come every morning Monday until Thursday guys hundred allahu even when I'm not in the mood Oh my god, my voice. Ignore my voice, guys. I woke up and then went back to bed again as usual. Yeah, my name on Fanan. Fanan Yeah. Denk, denken, denk. Yeah! Right guys, so I'm right there. <laughs> I can do that, you know? No problem, I'm ready. Ready? very very very very ready very very ready very I'm not too ready guys but I'm ready you know but I'm not too too ready but I'm ready I'm too ready guys by the way yes take that back too ready ready ready so where am I gonna start today let me try to warm my body first you know So I'm gonna warm my body first may tàngal suma yaram yu njëkk tàngal yaram allo. may I'm gonna warm my body first guys okay so this workout is for us to warm our body and learn how to move our body properly. this is just me not knowing what to do, you know, and just doing whatever until I get a hang guys, okay? For some you that are workout expert, don't worry when you see me just going ridiculous or doing what I don't know. This is just for me to move as long as I get tired, you know, and sometimes I scream and cry, but I still just move. So yeah, this is what this video is for that. comedy and exercise. you can exercise with me or you can just watch for entertainment <laughs> but I do explain really good things here <clears throat> that can help us especially us women to have a nice body especially when we keep this going the next few months and the next one or two years inshallah this is gonna be my lifestyle now I'll never sit down again and just sit down 24 hours or just like, you know, like just sit down and not move my body and make my body tired until I'm crying. I'm never going to do that again because it's not good. I'm supposed to make my body tired until I'm crying. So here, I don't know like what I'm doing. I'm not an expert and I don't like follow people video because I'm going to wait until I know what, I, don't want to follow people video now. It's going to stress <clears throat> <laughs> so I just do whatever, <laughs> you know. you see. <laughs> it's fun actually, but you get to cry when you want to, <clears throat> exercise is good for you. It's gonna make your mental health, you know, like happier and stuff like this. And it's gonna make you look young and beautiful and you can have more energy for when you are married again, subhanallah, you know. so This workout is for us women, especially mothers, especially who are married or want to get married again. Come here, guys. You cannot get married when you cannot move. What you gonna do with your husband? I don't know. It's like me if I'm, you know, if I get married again now, what am I gonna do? So guys, come on guys, let's start this now. So I just, like I said, I just do whatever, you know. So I'm going to start with stretching my hands. lii pour jigéen ñi nga xam ne ñu ngi sëy wala ñu ngi bugg a sëy wala jigéenoo jigéen da even góor sax ngeen ñëw ñu exercise surtout jigéen juy sëy jigéen juy sëy te du exercise moom fay mel ni yomb bu ñorul rek sa lal ba ni am jóom muy suuli comme ça man tey su ma amoon jëkkër rek ni yomb bu ñorut not good good see I can do that and when just started a few days ago I couldn't do that this leg was not wanting to stand and now it's standing see I mean this one This is amazing, guys. Yes. What can I do next? Okay, so next, I'm gonna do like this. Oh, you feel the stretch. This one is very good. You can feel the stretch. bii fa baax trop ngay yëg sa sëddi bi ni muy tàllaloo awesome and the next one I'm gonna do like a squat like this That's enough warm up. Can't be bothered with this warm up, guys. They're actually nightmare. So now, I play some music to distract the pain, So I'm gonna start with this one. This leg with this hand. This leg with this hand. Like this. sharing. This video is no joke to me there. Very important. Thank you guys. guys, wait, guys. Dying already, guys, wait. Let me open bi te ngeen seddoo ko vidéo bi ba xam solo de suñ jigéen ñu bëri fay war a jóg exercise fay wàññi yaram dafay joxe wér gu yaram suma biir bi li si def bëreetul yaramu tubaab bi kàpp yi ni tubaab bu sibbut biital tubaab bee yaramu tubaab bi mhm. lii yëpp dana dem su demee rek suma suma kàpp yi gën a feeñ ah surtout bu ma ko exercise ba pare ah taxaw leen ba exercise suma kàpp yi le ba pare gingeen lii fa xam njëriñ waaw ñun suñ jigéen ñi fañ ko war a xam ku ko du def ngay stress taxay dal ok soo léegi bii nga koo war a xam soo ko manee xam nga xam ko soo ko xamut yow ngay def sa loxo yi nii rek di ngëb sa gannaaw gi nii di ngëb sa loxo yi di def nii dee def noonu bu dee xamoo bii If you don't have this one, you do what I just showed you, okay guys? But if you can have this one, it's better you have it. This one is very good. It's gonna melt all this fat. bii boo ko xamee di def ni may def ni bu yàggee sa graisse si gannaaw gi yëpp fay dem sa graisse si biir bi dafay dem sa graisse si loxo yi This one is gonna take all the fat from here here the arms the tummy everything this one that I'm doing right now. and it's not hard you just stand and do like this very easy guys Balama Salah. Wah! This one is good too, but it's a killer. Wah! Wrong idea, wrong idea, wrong idea, wrong idea. <laughs> That one though, it's so good but it's so evil. <laughs> can bring it up like this or you can bring it down like this. Just do this every day for 5-10 minutes if you don't want to exercise. ting wrong idea wrong idea wrong idea my legs sax killing me and sharing the video. You never know who I can motivate to join me on this journey. This is my new journey now. No going back. fit. We're not like you guys that are fit. So please understand that this is like I'm lifting the wall. This is like I'm lifting the whole universe, guys. one is very good too, but too painful too. Too painful. It's not painful actually. It's nice. I love that. lot of want to do this and we can't do it guys don't think this is nothing it's something very big wooy seddoo leen vidéo bi te like ko bul foog ne lii du dara xam na ñun ñu bëri ñu bugg a def lii te mënuñ koo def bugguñ koo def mënuñ koo def bugg nañ koo def ko mënuñ koo nag bu leen ko xeeb seddoo leen ko rek xamu leen ku ngeen di dimbale mu jóg def ko wooy wooy suma loxo yi my hands my hands guys my hands dead beautiful guys I love life. Life is beautiful. and easy. very and beautiful life is xaduna fa neex yomb xaduna fa neex te yomb xaduna rek laa tey xaduna fa neex yomb wooy breaking my dining table. Can't read anything. Woo! Can't do that. Thank you guys. Keep liking and sharing. Keep following each other. This is the best arm and back fat and tummy exercise. And even your chest and everything. This is just for the whole upper body, guys. The <laughs> Don't worry guys, I'll teach you what to do. I'll teach you how to lose weight. We're going to lose weight together. Don't mind these people that are laughing. I know what I'm doing. Just copy what I'm doing. is the right thing to do. And ignore people. Just behave like you're some kind of an alien. And do what you know is the right thing to do. Behave like alien. And do the right thing. This is the right way of doing it, guys. Don't ignore people, guys. Keep doing the right Keep doing the right Keep doing the right Why? Keep doing the right Keep doing the right and ignore people. Why? defal li nga xam ne moom nga war a def te seetaan nit ñi waay suma loxo yi suma loxo yi my arms my arms my arms my arms my arms I don't care I don't care I don't care I'm not gonna do it I will not do it never ever ever I am done never ever ever I am done. Never, ever, ever. Whew. That's better. Don't mind me, guys. I'm not done at all. Never be done with this. Let open the window.

jërëjëfe yàlla jërëjëfe yàlla jërëjëfe yàlla àdduna nu mu neexee te yomb àdduna ko neex te de I love it very nice yeah life is so nice and easy guys I love it I love life <laughs> I love life, guys. I love life. Life is beautiful. I am strong. I am beautiful. I am determined. I am motivated. I have stamina. Very energetic. The best person in the world. What the hell song, man? Life is beautiful. I love it. Did you guys not love life? Life is beautiful. Why you not love life? Why you don't like life? I love it. Can't you see? So easy and nice. You don't like life? How dare you not like life? What hand, what leg to come up? Here, this leg. Can't remember what leg was supposed to come up. You don't like life. How dare you? Life is beautiful and nice and easy. How you don't like it? Look at it. So nice and easy. Whew! Look at life. Why you don't like it? <clears throat> Thank you guys. Keep liking the video and sharing. The goal is to get lot of women like me and even men to come out. They don't have to wait to get strong to come out because they'll never get strong then. Let them come out crying. Come, let's all cry together, guys, and do it. Say Dolan video. Come, let's cry and do it, guys. Come. Come to your mama. <laughs> Ah! Only God knows what I'm talking now. Just dying, guys. Bear with me. Ah. Bear with me, guys. Just dying. Thank you, Allah. Thank you, I love you, Allah. I love you very much. Ah. How dare you doubting my love for Allah? How dare you doubting my love for Allah? How dare you? How dare verses one can wait. That one can wait. <laughs> Ooh. Ooh, that one can wait. Olha só. kenn di dowut ak kenn nit ñi ñëpp still on it's not full charge Why? Killer, killer, killer. They're all killers. They all try to kill me. All of these workers are killers, guys. All of them. but I'm <laughs> phone bi charge loon moo tax mu def signal boobu ne naa ko charge the phone was telling me to charge it guys that's why it stopped working waay guys I'm almost done anyway it's one hour now léegi tey ba pare benn waxtu bi jot na téléphone bi charge loon charge moo tax muy def loolu léegi tey yi pare wuu this one you gonna go like this it's very good but painful why everything went off. It's one hour now. When this playlist finish, that means it's one hour plus. ndaw woy wu neex te baax wax na dëgg de soxla de. daanaka léegi léegi teeru jeex jeex na yéen xale Sénégal yi leen waa leen ginnaaw kilifa diine yéen ngi liggéey my one hour experience this is me closing my exercise guys Just over one hour, by the This one is very good for your back fat, back fat and arm fat. bii fa baax trop ci gëree si loxo yee gëree si gannaaw gi waaye maa sonn I'm ready I'm tired I can't do it. there's other good ones xam na yeneen yoo xam ne fa baax si fa gere loxo yi but I'm tired this other good one is like this you can do it standing you can do it sitting just keep going like a Hopeless butterfly, guys. Very good. For the fat arms and the fat back. <laughs> it's very funny but it's very good bii mooy moom it fay dindi gere si loxo ak bi ma defoon léegi si suuf fay dindi gere si loxo ak gere si gannaaw gi graisse yi graisse yi ne ci badaayis bi noonu fukki kilo graisse yi lang ci badaayis bi fii lii fa koy dindi those two kilos those ten kilos of fat that hang here on top of the bra breaking all your bras this can help you with if you want it fukki kilo gere yi nga xam ne ba daay boo xam mu dagg ko xar ko ba daay yaatanuñ ko <laughs> no bra can handle those ten kilos of fat no bra can handle it only this can this can help you with <laughs> those two ten kilos of fat these ones no bra can handle them I know them no bra can handle them It's gonna break every bra you have. try this? Or you want. try this. You choose. I try this. Why my arms? Don't worry, I know why you're not gonna try it. I know why you're not gonna it, I know. Can't blame you guys. I know why you're not gonna it, to be honest. It's very nice. Who want to do this? they very nice and painful I swear to God I'm dying I'm not joking it's not comedy all of this is not comedy none of it is comedy none of it is comedy they're no comedy they're no comedy they're no comedy abs I don't care. Fat abs or not, I don't care. Fat abs or not, I don't care. Fat abs or not, I don't care. I don't care. Whew! I'm done. I'm done, guys. I'm done. must lose this weight screenshot it screenshot killing myself screenshot now and the end of the year you screenshot the hell again I'm telling you this I'm gonna post here no matter what. Exercise this year four times a week no matter what. Inshallah, unless if I have a job to do in the morning that is worth the money or something very important. If not, I'm gonna exercise four times a week. Even if I have job, I'll do it after. I must exercise for those for days a week now, no matter what. Insa Allahu, I rather die than not doing it. Now, I'm so depressed. <laughs> Stop hitting yourself. <laughs> it's not depressed. It's I have to do this. I have to choke myself. I don't have no one to motivate me. I had to force myself to motivate myself. Nothing to do with the press. Nothing to do with the press. Why I'm tired. My body is not used to this, guys. I started last week. The week before I started, but last week I take it seriously more. So my body is still rotten inside. Die. Not used to this. every day, like four five times a week. Beside this, I do walking, guys. I'm gonna go and walk today or tomorrow. I have to do like eight, eight kilometers or something like that. yeah, you understand how I feel. So why are you calling me depressed then? You're just a hopeless asshole, I guess, but anyway. I'll just block your ass then, hence you know how you feel and you're here bullying like a hopeless idiot that you are, but anyway. I pray your ass will never be depressed anyway. Thank you. Anyway, guys. Why? Go eat cherry. No. I'm not gonna eat now. I have, yeah, my chia seed is here. I have my chia seed. Look, chia seed, honey, apple cider That's what my lunch will be. Lunch slash breakfast. Today I'm gonna have salad, something healthy. I'll eat you see. I'll vlog it. Am I live streaming? I don't know. I'm gonna have salad with sardine or salad with uh, uh, mackerel fillet thingy <clears throat> I know I just block some people when I have to I don't let what they're saying get to me sometimes when I talk to them it's not like I let what they say what get to much it's just sometimes they need addressing especially when I do video they ask questions about my underage marriages or why did I marry that amount of time and stuff I make awareness for my community to stop giving their children to random people, you know, to get married to. I make awareness awareness of the consequence of doing that. That's why I talk to them. It's not like that that individual person I'm answering, I should just ignore them. No. I answer them, especially when they're making excuse for this practice to happen or they're denying where, where us Muslims are copying it from. I make awareness and answer them sometime, but sometimes I just make it like a joke and just be telling them like you know like this but it's not funny at all hello Penda but thank you so much you're so kind Sunday thank you Sunday I'm gonna go my phone is not charged as usual when I buy charger my children just use it you know and just ruin it I have two charger that I bought from eBay they're coming at the moment we just have one charger in the house everyone is using it <laughs> so ah. <laughs> I'm just whenever I'm laughing in the camera I'm looking at my teeth anyone is a dentist here but I'm scared to fix my teeth because I, I feel like I'm gonna eat it when I'm eating you know I love food Penda, you don't exercise all Some people copy me when I'm exercising and they exercise with some just sit there and laugh. Anyway, it's for entertainment. Thank you. I'm so active. <laughs> Thank you. I think I need to be more active, but. Hello, Kura. Mbadu Dara. Hello, Kura. man dama tiit sax foo ne danga wax ne mobile bi dañ ko sàcc again that's fine saa woo ko caajee rek baax na maa dara alright maa defu dara aha waa that's fine man maa ngi damay def sa sax waaye léegi teema pare maa defu leen dara ah waa soo ko chargé rek kon xam naa ne incha allah ah ok thank you ok bye take care mm. ah sorry guys I'm going call from Gambia. yéen ñi doon comment yëpp te maa ngi busy all of you that were commenting and I was busy let me check you guys. Penda soo fi gisee kenn koo xam ne mu ngi bind waaye xanaa ko bind hàngale doo ko xam. ku bind lu mu war a bind te te te di ko bind ci wolof nga bloqué ko ñu jaale ko dégg nga penda ku bind lu mu war a bind te di ko bind ci wolof nga bloqué ko ñu jaale ko hello lady wellness na ngeen def yéen ñëpp yéen ñi seetaan hi everyone thank you guys maa ngay dem yéen ñëpp yéen ñi fi nekk yëpp everyone that is here thank you I'm going I'm going to go on sour, you know, and drink more water and maybe drink coffee later and just rest. Mm-hmm. I need to rest. Uh, no, I have to pray as well then. It should be praying time by the time I do all of that. and then rest and then I'll eat my dinner like four or something I want to eat my dinner like four o'clock or something I might be coming live when I'm eating around three to four when I'm hungry if I cannot keep it any longer I'll come and eat it but I'm still continuing the intermittent fasting guys I had a cup of chia seed apple cider vinegar and honey one teaspoon of each of those and water that's what I had here <clears throat> maa ngay dem kii daf ma neex jërë ngeen jëf soo léegi maa ngi dem ba tey maa ngi si xoor gi si wàññim yaram mi bu ma këyee chia seed laa lekk chia seed bi dafa baax si yaram benn kuddu gu ndaw ci seed benn kuddu gu ndaw lem benn kuddu gu ndaw limon wala apple cider vinegar lemon ou apple cider vinegar ak ndox nga def ci ndox ba mu xem fii water until here mhm. nga yëngat ko taaj ko lu mat fukki minutes yooyu mu sedd mu mu ah, mu gajaf ah, seed bi gajaf I normally use warm water not too hot but not too cold just warm the water but if you don't do that it's fine and I drank that in the morning like around this time so it's gonna be breakfast last lunch you know but you can have it early morning if you want and then I I sometimes have moringa tea and sometimes I put moringa inside yenn yi dama si dee def sungu fi si ab si seed bi su dee xamoo chia seed nga def sungufi mbuum rek sungufi mbuum ak limon ak lem pardon mi nga def ko ak ndox yëngat naan ci suba gi fay wàññi yaram dafa baax ci wér yaram mbuum fay wàññi yaram xamu leen loolu if you don't have chia seed you can use moringa but even if you have chia seed put little bit of moringa powder in it very good i forgot to put it in yesterday and today i don't know why i should put the moringa out where you have to eat moringa powder guys all the time if you can at least couple of times a week dee leen lekk su fi mbuum su ngeen ko mënta lekk bët bu set semaine bi lekk leen ko at least ñetti yoon ñeenti yoon su fi mbuum ku ko ba xam wér gu yaram anyone that is running away from moringa powder good luck with life <laughs> <laughs> Moringa powder is gonna give you nice health, nice energy. Moringa powder and baobab and hibiscus. No one should run away from these things. Mboom. Bui. Never die. Bui. Basaab. ñett yii kuy dund te bugg xam wér gu yaram si àddina waru koo daw anybody that want to live in this life with a healthy life should not leave this tree alone hibiscus baobab and moringa powder you should have this tree no matter what never ever you don't have these things in your house they're more important than your food nothing apart from the air you're breathing basaab buy moo gën a am fayda sa téléphone bi gën a xam fayda yére yi ngay sol nothing yëpp moo ko gën a am fayda gannaaw ngelaw li ngay nokki boo ko baxee doo xam wér gu yaram waxuma la nga suukar ko ba mel ni lem de suukar gi fay rey I'm not saying you put sugar on it until it's like honey no that's gonna kill you the sugar is your enemy you can eat it but at least like two tablespoon or two teaspoon a day sukur boo koy lekk ci bés bi suba ba ngoon bum romb ñaari kudduy sukur si bés ñaari kuddu gu mag wala ñaari kuddu gu ndaw loolu la ko docteur yi waxee su fekkee ne nag nga koy lekk lu hëpp lool xamal ne yow ngaa rep if you are eating more than that das mean ngaa rep rap rep my language rep is somebody want to die they rep When I tell you nga rep or I'm rep, that mean I want to die. Nga rep, that mean you want to die. It's no joke that I read about food. Let's read about food. It's gonna take time, you know, for you to stay away from whatever you're used to, but don't eat too much sugar. And our country, we put too much sugar on the hibiscus, too much sugar on the baobab, too much sugar on everything. suñu waa dëkk fa ñuy suukar basaab bi ba saf suukar ba basaab bi du baaxati baaxaay bi doo ko mën a am basaab nga koy raxas suukar ko xaw ma xooj ko basaab bu xem rek su bët setee nga xëy xelli kaasab basaab bi rek naan ko noonu jaru suukar bu garab la fa baax ci wér gu yaram guddi sooy tëddi nga naan ko waaye léegoo léeg bu dee ku yomba seben nga fay tax nga jóg guddi seben waaye boo ko naanee guddi booy tëdd boo xëyee yëpp ngay seben wala boo jóg ci guddi gi seben nga jog seben surtout boo newee bitim réew fii wala nga ne ci kër goo ne wan ak wan ci biir looy waaye su dee ngay liggéey nag jóg seben sa sa nelaw yi yàqu nga oytu ko waaye man su ma ko naanee du may jóg seben de ci diggu guddi gi déedéet su ma xëyee suba teel rek si laay yàkkamti seben su fekkee maa naan basaa bala maa tëdd wala mbuum ma naan ko bala maa tëdd su ma xëyee suba teel may njëkkalante wana wi di ñaan ne gune bu buñ nekk si wana wi waaye nag xam nañ yoo xam ne seen seben yi fañ koy yénoo duñ ko mën a téye fa ñuy daw seben nga def noonu nga daw seben kon waaye soo xamee ne fa lay yàqal nelaw te nga yow liggéey bu ko def waaye buy basaab ak mbuum ku xamul ñett yi sa néeg te di ko lekk waxuma nga xam ko taaj ko doo ko laal de I'm not saying you buy this thing and you put them away you don't touch them every day you look at and then